la concerner Afrique faut dépasser les frontières du Sénégal loolu moo waraloon ñu dooree tey suñu waxtaan ci c'est calme, la L'année bëgg sur wax nag ci Sénégal euh, Le rassemblement bu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 rassemblement national fu ne la ñu ci Sénégal déedéet ñew yi jógee ñi jógee ci région yi ñew symbolique la woon waaye ñëpp xam nañ ni buñu bëré ba bëri gëmmu ni dépassé nañu 200 personnes ci les dizaines et les dizaines de milliers de personnes yu nekkoon foofu. ña jógee ci région yi nag joxuñu leen kaar joxuñu leen paas ñoo dajale sen xaalis jël sen kaar dik lool di lu rëy rëy rëy te dalal suñu xel dalal suñu xel ci ni ñun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

c'est un droit constitutionnel constitution qui moi moi, les face à l'injustice chaque Sénégalais a le droit de résister L'ordre d'insurrection... insurrection du euh, coup d'état ou l'ordre lu Mais Mais wax ni ñun ay nous fait rire d'ailleurs sérieux avons assassins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

ngiré way téel sa bop téel say ñoñ ñu bay di saga nit ñi ak di xass nit ñi ndax cheikh abdou bar doli li mu ko def ni andu ñu ci kaddu yi ndax nun lañu mësa wax moy politique du dugg ci vie privée jamm politique du saga jamm politique du xass jamm retiré ci nak mëna am ci ku nekk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

pour nous démobiliser Nous la dañuy wax Sénégal am départ sénégalais départ mais il est arrivé bi Nous problème Nous wax nous li tax appel ne di ñëw mobilisation nous avons le nous bu place de l'obélisque transformer en place Tahrir nous ñi toog nous